dem da nga ma ne. Ah. sëñ Abdou sëñ Abdoulahi borom deur bi daf la dekkal. ku ko yow. waaw. lola num demé dekk dang fa faatu woon ca ya. ayo. ku ko ah man kay am wax ne seigne Abdou mo la dekkal. waaw loolu ma la ko wax kay. Hmm. ay faatu won na kay. man kay loolu lu ma leer la. ci ginnaaw tawat la am wala. tawat la. Hmm, hmm. tawat laa hmm faatu mm-hmm. ñaanal di jóg <laughs> na mm-hmm. fekk na yow ñu defar la ba jullee des ah, jullee guñ ma kay boo mm-hmm. ma tëddoon waaw simmi simmi yëkkati saafara jox mm-hmm. ko yilimaan mi wax sëñ Masamba Gaye mm-hmm. na ko mu dugg ci gémmiñ bi mm-hmm. sëñ mu dugg ci sama gémmiñ mu dikkaat moo ko jox nga saafara nga sax na saafara waaye war na ko na mu def mu ko dem na kay dama ci moo di jëli waaye dem na ba noppi de mais ma ko wax ba sëñ Abdoulahi waaw waaw mhm. ah, boo dugg si néew yi waaw mhm. ah, man néew bi mu man sama bopp man mhm. daa ay làmp lañ taal si néew bi bu ma tëdd bu dugg daa mel yëkkati tëral ma ci poojam nekk man xam naa nekk na faa moom toll li ngeen fi ne mu jege ko ba mu tëralaate dem dëkk yaakaar naa ko waram fekk mu ne fare <laughs> ma door fa ma door fa ma a fa amee nag am message nag ma door fa yëgee nag lu metti lool lool lool lool xam xajutuma ko soxna nag soxna xarit si bi nga xam ne mooy ndey soxna daba waaw sama ndey rakkam mu dikk ne si ñebbu ah man de Mbàkke dama bëggoon ku ma dimbali ndax sama doom yii de yi mu nekk de daal na xarum ndeyam lool abum déggee ne ma ngi fi fekk déggee ne maa ngi fi de dama koo dénk doomam de ba may dem gaawaan mhm. di fekk suñ gaawaan mhm. dara ma doon sama rak man mu ne ma boole loon mhm. yor naa ko fa ñetti at door koo yebal mu ñibbi tay bi kon su ma sañoon dag ma ci ba dara bañ ko jot dégg naa da kon waaye soxna xarit demal waaye toog xam mu ne ab di yëngu du ma ko yónni mu ne ci sama ndigal mu bàyyi ma ganaar mu dikk maa ko dungu bi celaruuse waaw <laughs> te booba yaag sëñ Abdou Dieng Balla Fall yéen a fa nekk Abdou Abdou Karim Dieng rek si Abdou Dieng Balla Fall. ah Abdou Karim Dieng. waaw moo moo moo ne raw hmm, ñaar la sëñ Balla Fall yi boole jox Cheikh Abdoulaye. déedéet man maa ko maa ko fekk woon yëbbul ci moom. waaw foofa ca Darou Rahman. waaw hmm. bàyyi sëñ Abdou mii sëñ Abdou Dieng mii booba mooy xalifu mii borom Fatou ba ànd si Modou Balla. waaw booba mooy xalifu bi. Hmm. maa ko bàyyi dem yëbbul ci moom. ne fa. day sëñ Abdou Karim nekk aw gàmmu mhm. rakki gàmmu mhm. rakkaati gàmmu mhm. maamu koor maamu koor maamu koor aw gàmmu rakki gàmmu rakkaati gàmmu yetti weer maamu koor ci ba ba maamu koor way jeex nee naa ngoon la maa ne xanaa gàmmu gàmmu bi daa jeex gàmmu yeex ak kaay di gàmmu yeex ba ngoon li ñuy ñuy suñu maamu koor lu ñuy suñu ndeyu koor suba koor nga naan nga naan waaw lii moo ne man su ma na ko ñu ne dangaa faatu woon ci yow faatu woon nga de ah loolu yëguma ko <laughs> ku faatu kay du yëg ne faatu na <laughs> ah, du ko yëg de du ko yëg de mën naa ko wax du ko yëg de ah, waaw waaw ci waaye ba sëñ bi kër mi ñëwee ci baraxam ci ci ci si si si fanweeri saa la ñëw. dafa ñëw altine. ni tey. ca marax boo boo saxaar gi rek ñëw Tuuba. bu mu ñëwee ca marax. wàcc Mbàkke daal di waxu tànkam dikk door a mbaar. fanaan fa ba asamaan sa mu xëy la bi ñëw Mbàkke. yendoog moom yendoog moom yendoog moom ba jant bi so. ñu ngi fi wàcc ci néegam fekk nit ñi. lu bokk fanaanaa bi su boo yoor yoor mhm. ci àllar ba jom ne nan dem ne ma ma yóbbal ko sëñ ba sant ko mhm. ndax sax tawa yi dégg naa fu ma jaar ñu ne ma rek mhm. sa ndongo la di sëñ bàkku ba téye waaye bu dul ko nag doo ko wax waaye ma ma ànd ak moom bu ko perong bi ci sa wóor nee toog ak gabar gabar gi ñu rafet yi mu daan sol dégg naa ku mënoon a solo la mu yóbbu ko rek mu rees bëñ bi moom bëñu or la. te bëñu yax la boobu daal. Mm-hmm. yax bi daal mel ne or. Mm-hmm. we weyi tànk bi. yëpp mm-hmm. yëpp mag. yëpp daal mel ni benn benn we bu ndaw nekk. loo rek mu daal di rees. aleykum salaam. kooku. Abe Dieng mu Louga. Abe. waaw waaw. loolu. ah damaa dégg ne laaj nga ba. ah bu ma déggee laaj naa ne. may leen ca sama baay laa